jëmm la woon it joo xam ne sëriñ bi dafa dafa dafa sottiku dafa ni mu sottikoo ci saayiram ba boo ko gisee saxel dem ci sëñ Tuubaa ni la sottikoo ci xolam ni la sottikoo ci jëmmam ni la soppikoo ci yéeréem ni la soppikoo ci bérébam léppam léppam sëñ la illa allah wahdahu la sharika lahu shahadatu man sayyidiha yablughu munaa wa ashhadu anna sayyidina muhammadan abduhu wa rasuluhu ngir jëmm jee dem waaye ruum mi ngi ci leer yi tey di naan. del fekke woo seex ji ànd ak topp ci gannaaw mu yàggu nu jiite sama borom def jàmm ak salaam ci dara ci yoon wi. kon nag kon àndandoo kon bokk na ci liy dimbale nit ki ci mu maanaam jikko ju rafet ba topp mooy nga di ko ñaan di ko ñaan yàlla. xaakim solo na jële ci abi ayub wax ne yéen saa sa newoon na ñaan lu bari yàlla defal ko ci ko defal agfir dunubi wa xataayaaya kullaha yosu moom yàlla nag ma jéggal samay bàkkaar ak sama ñëwteef yépp allahumma wajburni allahumma ahdini li saalihi al amali wal fa innahu la yuhda li saalihiha wala yasrifu an siyaha illa ant yow sunu eh, ma tàggat yàlla nag ma jubal dëppale ma jëf yu baax yi ak jikko yu rafet yi ndax kenn du gindee jëme ci jëf yu baax yi kenn du wëlbatee ci yu ñaaw yi ku dul yow suñu borom kon daana ko ñaan lu bëree bëri bëri allahumma inni a'udhu bika min munkaratil axlaq wal a'mal wal ahwa wal adwa kon bokk na ci li ko ñaan gi mu ko daa ñaan kon di ko ñaan yàlla bokk na ci li ngay mën a fàggoo jikko ju rafet ji ko joxe ñoo kon li may jaaxale eh, ñu jàlli kàddu gi mooy dafa làmboo ay njariñ yu bare bare bare jikko ju rafet ba njëkk mooy rafet jikko dana taxa dana barkeel kër di barkeel ak dund barkeeb kër ak barkeeb dund jikko ju rafet des na ko fàggoo ahmad solo ni jële ci soxna Aïcha wax ni yéen saa si newoon na xusnul xuluqi wa xusnul jiwaari yamuraani diyaara wa yasidaani fil amar rafetal sa jikko ak rafetal saw dëkkiin ak ña nga dëkkal dañuy dundal kër yi di dolli dund yi ñaareel mooy e, tedd ngay jikko dana diisal balaasub yiw yomal qiyaam ibnu abi dunya solo jëli ci abi abi dar on yonent bi aleyhi salaatu wasalaam waxoon na ne yaa aba darrin ala adulluka ala xislatayni huma axafu ala dahr wa athqalu fi lmisan min gayrihima xaala bala ya rasulallah xaala alayka bi xusni lxuluqi wa tuuli sumt fa walladi nafsu muhammadin bi yadi maa amalu xalaayiq bi mislihima dana ko yow Abu Dar xanaa duma la xamal duma la tegtal ñaari jikko yoo xam ne ñoo gën a woyof ci gannaaw nit ki te gën a diis ci balaasu yiw lu dul ñoom ñaar mu ne ko ah kay yow mi yàlla yoon ne ko maa ngi lay dénk rafet jikko rafet jikko ak gàttu làmmiñ maa ngi lay dénk rafet jikko ak gàttu làmmiñ ne ko giñ naa ci ki nga xam ne sama bakkan ci loxoom jëfi yi doomu aadama yëpp tolloowuñ ak ñaari ñaari jikko yi jëf doomu aadama yëpp tolloowuñ ak ñaari jikko yi ba tey Abu Daawud solo na jële ci ak Ahmad jële ci Umu Darda mu wax ne yéen saa su newoon na maa min cheyin fi l misaani afxalu min xusnil xuluq amul lu gën a diis ci balaasu su biiw ëllëg yow ma xiyaam ci jikko ju rafet jikko ju rafet amul lu ko gën a diis ci balaa su biiw ëllëg bis penc kon jikko ju rafet lu am am solo la ba tey ñetteel ba mooy dana sabab dëppoog xol yi dana sabab dëppoog xol ndax dañuy wax ne ca alamul arwaax ba sunu borom bindee ruux yi ca asal fala boole woon ñam yu boole mooy ña bokk lu ñuy jëf fii bu ñëwee dañu xamante ña ca wuute dañu dañu sore muslim solo na jëli wax ne al arwaax junudu mujannada fa ma taarif minha minha italafa fa bi mooy eh, jikko ji rafet dana taxa am kamalul iman ngëm gu sëkk jikko ji rafet dana ko dana dana suuxat ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo waxoon ahsanuhum xuluqa jaami yàlla yi ki ci gënal yàlla jaami yàlla yi ki ci gënal yàlla mooy ki ci gën a rafet jikko kon dana jur cofeelu yàlla subhanahu wa taala ci jaam bi juróom-benneel mooy rafet jikko dana taxa yayoo aljanna abu daawud solo na jële ci umaama bu yoon saa sama ne ana saimul bayti fi rabdil janna taraka al miraa in kaana muxiqa wa bi fi alal janna liman xasna xuluqu nee na yàlla may na ma ñaari këri aljanna gi mi ngi ci digg aljanna waaye nag ka ko jagleel ëllëg mooy kabayi werante tamuy dëgg ci moom ak geneen kër gu nekk ca fa gën a kawe ci aljanna ka ma ko jagleel may ko jikkoom rafet ba tey Tirmisi solo jël ci ak Ibnu Maaja solo jël ci Abi Hurayra wax ne yéen saa sa newoon na laaj nañ ko laaj nañ ko ne ko ana jën ana jën ci jëf yi mu ëpp lu muy tàbbali aljanna mu ne taqwallaahi wa husnul xuluq jikko yi li ci ëpp luy tàbbali aljanna mooy ragal yàlla ak rafet jikko ba tey laaj nañ koy ne ko ana jën ci jëf yi moo ëpp lu muy tàbbal ni sawara mu ne alfamu walfarju gémmiñ ak pëy mooy ci ñaar yi muy muy muy muy ko ko ko ñaaw kuy xas ay ay ay ay kuy xas ay ay ay di wax lu di di wax lu rafetut ak di moy ci sa pëy yooyu moo ëpp lu muy tàbbal nit sawara juróom-ñaareel ba mooy dana rafet ji ko dana taxa am daraja yi ku dëkke koor dëkke taxaw guddi di naafila te fekk sax wóorut taxawut abu daawud ak xaakim sono jëli ci soxna aisha radiallahu anhum wax inna rajula la yudriku bi xusni xuluqihi darajaati qaa'imi layli saa'imi nahar nit day mën na am ci rafetu jikkoom daraja yi ñiy taxaw di naafila ak ñiy yendoo koor donte nag fanaani wuta naafila yëndu wuta koor maanaam daraja jooja ba tey ahmad solo jëri ibnu umar wax ne innal muslimal musaddida la yudriku darajata sawaamil qawaam bi ayatillahi azza wa jalla li karami daribatihi wa husni xuluqi nee na ab ci rafetuk jikkoom mën naa tax mu dem ba am daraja wo woo ñi koor ak ñi fanaane taxaw taxaw taxaw di tari alxuraan ci guddi gi mu ñuy fanaane jàng ci taxawaay ci guddi gi te jikkoom ju rafet rek moo ko yóbbu donte taxawut wóoruti wóoruti itam ñetteel bi mooy rafet jikko dana tax a jege yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Tirmidi yu solo ci jaabir mu ne inna man ahabbakum wa aqrabakum minni majlisa yawm alqiyama ahasinukum axlaqa ki ma gënal ci yéen te mooy ki may gën a jege ab jotaay bis penci mooy ki gën a rafet jikko ci yéen kon dana tax ëllëg nga bokk ci ñi dëkk ak yonente bi sallallahu alayhi wasallam ci aljanna ci ñi ko jege juróom-ñeenteel bi ci lay jeexale mooy dana taxa dana rafet jikko dana xaraamal aw yaram ci sawara dana tax suñu moom xaraamal saw yaram ci sawara eh, muslim moo solo wax ne yon sas new na anna inna naara taxrumu ala kulli qaribin hayyinin sëhl sun borom xaraamal na sawara ci képp koo xam ne dafay ku jàppandi ay mbir ku woyof ku yaatu ko xajoo ñëpp te mooy ku rafet jikko Sëñ Abdul Xaadir nag mboolem lu ñu fa wax jikko lépp la la na ko ci ngëm yàlla ga ca sellal ga ca yaatu ga ca xajoo ga ñëpp ca ëmbal ñëpp aw yiw nga xam ne saa boo ne jàkk jëm loolu nga cee njëkk a jàng te nga xam ne boo ko gisee bëgg ko boo jëflanteeg moom dootoo ko mën a muñ ko gisee faaw da ko bëgg soo soo jëflanteeg moom dootoo ko bëgg a bàyyi dootoo ko mën a muñ kon loola mooy euh, rafet gi mu rafetoon jikko ci ci ci diggam ak boromam waaye ci diggante mu jëflante mu mu mu jëflante diggam nit ñi boo digg ma yàlla ci ibada waaye dégg ma nii ci ci muamala nga xam ne lu ci nekk taxaw na ci taxawaay boo xam ne anam ga gën a mat anam ga gën a mat loola moom la ci taxawee te ku te ku ko dund maa nga jëfante moom lu néew néew jàng nga ca loola eh, nga xam ne soo ne ko jàkk yar yar bi na ci moom yar bi ak dal gi ak ak ak ak xar kanam bu leer bi nga xam ne soo ko ne jàkk lu bari nga jàng ci moom loola kon day mel ni li liñ fi waxtaan lépp ci jikko lépp dafa ko làmboon te lépp mu dëppale ko alxuraan dëppale ko suñu kon ñu ngi jéggul taxaw foofu yal yàlla defal ndimbal ak tawfiq ak seel xadim wasalaamaaleykum wa rahmatulah su ma wane ne léppam ni nga ko waxee ci njëlbéen bi muy pas-pas bi nga xam ne moom la suñu borom defoon ci moom muy pas-pas bu am solo loolu fa tabarakallahu wane na ne kon boo bokk na ci ñi suñu borom tawfiixale nga xam ne seen pas-pas soppikuwul seen pas-pas xaajamul sëñ Abdou Xaadir suñu borom boole na ko ci ñooñu pas-pas nag euh, li nga xam ne moo koy tax a dëgër suñu borom da ko cee joxoon te ñaari jikko yi nga xam ne ñooy dëgëral pas-pas mooy jom ak ngor sëriñ Basiiru Sekk Saalum bi muy leeral bi sunu borom tànnee sëriñ Touba nar koo jox yonent bi suñu borom moo wax yonent bi ne ko ki ma lay booleel de mooy doon sa mbër waa ju ko mas waggar la kum song daan ko am na jom te gor la. sunu borom moo ko seereel yonent bi sallallahu alayhi ko noonu la sëñ Tuubaa mel ki ma lay jox. sëñ Tuubaa nag sëñ Abdou Khadir nag sëñ Tuubaa rek la doon roy ne kon pas-pasam foofu la nekkoon soppikuwul xajamul bokk na ci itam li nga leeral ci moom moom ñàkk soppiku googu nga xam ne ci ci ak tuur tànk ba ci mag loolu sëñ Basiru Seck da ci am lu mu jàngalee sëñ Tuubaa nee kawar gu ñuul ga gañu naa bijaaw ba ñoo bokk lu ñu xam ci sëriñ bu mag ba noonu la suñu Abdou Khadir meloon yi nga lim yëpp itam tàmbale ko ci gëm dogalub yàlla ak ragal yàlla ak yooyu yëpp ba ca ba ca juróom-ñeenteel ba nag nga xam ne moo di alxutwatul xasana ni nga ko waxee sëriñ Abibu Mbàkke mos na maa wax ni ma yoonu sëriñ Touba yoonu rafet njort la la neex sëñ Abdou nag dafa tànnan sëñ Touba muy roy teefam te mag ñi dañu ne koo nuru ba noppi di ko roy mënees na laa jaawaleeg moom loolu moo taxoon ñu doon ko jaawaleeg sëriñ Touba fa tabaarakallaahu ci lépp nag bu doxee ñu ne sëñ Tuubaa bu waxee ñu ne sëñ Tuubaa bu jëf rawatina nag bu jëfee ndax sëñ Tuubaa doon roy nga loolu lépp nag bi nga ko leeralee ba noppiitam nag nga daal koy saraa nag ci jikko te jikko itam di lu am solo ndax yonent bi alayhi salaatu wasalaam loolu mu wax ne dañu maa yónni ngir ma mottali ci jikko yu rafet yi loolu day wane ne kon am na lu mu fi fekkoon jikko yam fi fekkoon ak yi mu indi moom lañ boole muy lislaam kon lislaam du lu ñuy yenn waaye jikko mooy lislaam te moom na mu doon àndeek ña nga xam ne ñoom la nekkaloon ba di leen leeral loola nañu xame nañu àndee woon ak moom mooy bi mu leen nee dama ñëw ngir mottali si jikko yi dañoo ànd ak moom àndin woo xam ne bu defee lu ñu xamul bu defee lu ñu xam dañuy xam ne ci yim fi fekk la ndax xam nañ ko mu xam ko waaye bu defee lu ñu xamul nag dañuy gëm ne ci yim indaali la ñu daal ko cay roy moo tax coow du jib noonu la Sëñ Abdou Khadre doon doxe ak ñi nga xam ne ñoom la ko suñu borom tabaraka wa taala boolee loon mu nekkoon jëmm joo xam ne euh, sëñ Moustapha Bousso nee na lim daan def lépp la ci daan sant yàlla. sëñ Moustapha Bousso moom sëñ Balla def naa xam ne sëñ bu xaajir lool. nee na toog na ci Mbàkke di joxe di joxe di joxe ba am ko sant Jóob ku ne ci wetam. nga xam ne kooku dafa yë dafa yëngu ba sëñ Abdou sëñ Abdou Xaadir xam ne euh, nii sëñ Abdou Xaadir di joxe metti na ci moom. sëñ Abdou Xaadir ne ko ginnaaw yàlla boolewuma ci ñiy laaj. dama koy sant ci joxe gi may joxe. nga xam ne kon li mu doon def lépp da koy sant yàlla. suñu si Moustapha Bousso nee na am na bés ma ñëw ak si ci kër gi fekk ko taxaw ci ci ëtt bi mu ne ma ne ko yow de yaa fii sama mbokk oto bee ngay séen de ka fa nekk dafa ëmb ba ca nopp ya kër gi dara newu fi mu nekk nii si Moustapha daal di yegg ci Abdou Khadir nuyoog moom daal di koy déey si Abdou Khadir daal di ñu fukki junni jox ko nekk ko demal te ñëw mu daal ñëw jox ko fukki junni yi mu ñëw bi si bi bi waa ji demee si Abdou Khadir dana dana si Moustapha li ma defal xam nga nu mel mu ne ko ah, mu ne ko dafa mel ni da ngaa wër sama tool gis ci barab am am ñax nga ñëw ne ma barab sàngam am ñax nga fa ma dem béy ko noonu la gise woon ni mu doon jëf ngir yàlla kon sëñ Mor fa tabarakallahu indi nga sëñ Abdou Khadir ci ak mat mat sëkk yàlla nañu yàlla tawfiixal dégg ak topp te boole nu ci ñi nga xam ne bu ñu déggee wax topp la ci gën a rafet mooy li ci am solo kon mbokk yi du duñuy jégalu rek na xam ngeen ne waxtaan wi ni nga xam ne noonu lañ ko war a na tërale waxtu mooy loo xam ne moom mook saxaar yam ni ko sañ Bay Jaxate waxe du ñu ne kenn ku ku ku bañ ñu ñu ku bëgg ñu bañ laa raw da war a gaaw xam naa loolu mooy mooy li nga xam ne moo moo ñuy tënk bu ko defee rek euh, dana nu jox kàddu gi sëñ Jili mu tënk rek moom itam ni mu gisee waxtaan wi ci ak tënk ak sëñ sëñ Lamine sëñ Abdourahmane sëñ Sidi mi ngi fi toog waaye sëñ sëñ Mudu Maamun Busu mi moo war a wax ci turu sëriñ Falilu kon nu déggee noonu rek bu ko defee nu jëkkante waxtu bi nu jox kàddu gi sëriñ Jili euh, sëñ Jili Buso moom sëñ Abdou Samad Buso moom itam fa tabarakallahu mu indil nu ak aw gisinam ci waxtaan wi rek suñ Maam Mor dafa mel ne li nga xam ne moo amoon solo ci li nga xam ne moom lañ yittewoo woon xam ko ci jikko seen Abdou Khadir lépp andi na ko sëñ Omar Kantam gën koo leeralaat euh, jikko yu baax lépp luy jikko ju baax euh, moom mooy li nga xam ne moom la Cheikh Abdoul Khadir xam daan ko dimbali jullit ñi itam nga xam ne ñëpp ci yam itam loolu ñëpp ku doon ak moom xam nga ko euh, am na mbokkum taalib moo xam ne mii moom itam sorewut a bi sëñ nettali ci ki nga xam ne soxnaam dafa tooloon barab moom soxnaam dafa yeeyu yàlla dogal bis mi ko war a ngénte ak màggal gi jege lool mu ñëw ci sëñ bi fekk fi mu toog ma ko xam naa turam ak yëpp moom moom ma ko nettali boppam mu ne damaa ñëw ci sëñ bi yàlla dafa dogal moom dafa génn àdduna moo tax jërul ñuy tudd turam damaa ñëw ci sëñ bi ne ko man de gan dafa am ca kër ga te itam màggal gi jege si lool waaye nee na sëñ bi dafa daal di yëkkati fukki junni daal di koy jox ne ko màggal gi nag moom nañ ko bàyyeek borom bis bi ndax kuy defar bisib jàmbur sa bis mu ta wax euh, kon lool itam ñu jële ci bind boo xam ne bi ci wàllu sellal gi ak wéetal yàlla gi ak gëm sëñ bi ak bëgg gi ak wóolu gi loolu itam mën nañ koo jàng ci moom kon Cheikh Abdoul Khadir daal doonoon na koo xam ne euh, képp koo xam ne yaa ngi doon dund ak Cheikhul Khadim radiyallahu anhu gis noonu doon nam doon waxee nam doon defee yàlla dogal ñun ñi nga xam ne ñu jamonante ak moom dund ak moom mel na ne doon dund ak ku dund ak moom daal mel nga ak Cheikhul Khadim radiyallahu loolu laa bëgg a wax rek waaw ndax moom la misaal ci ay waxam ay jëfam léppam rek kon doon na koo xam ne kii li ñu war a def rek te bàyyi ji xel mooy kon jikko yooyu nga xam ne wax nañ ko ci moom ñu jëm ko fàttaliku jëm cee roy bu baax a baax ndax roy gi mooy li nga xam ne moo ñu amal njariñ tey ak ëllëg yàlla mi mën dimbale nag kon yàlla nu ci dimbale wasalaamaaleykum wa rahmatullah te Mamoune Bousso mi ngi fi te gannaaw ci jikko sëñ Abdou Khadir lañ doon wax ñu tàmbalee ko ci tawxiid dañuy fexe ba indi ci ñaar fukki jikko rek ci sëriñ bi yoo xam ne nii buñ koy indee jikko la yoo xam ne jikko yu mat a roy la ndax jikko yu rafet la tey tawhid ji nga xam ne mooy pas-pas ci ngay gëmee yàlla ndax wax naa leen ko barki biig nee naa leen doomu aadama ñaar rek la muy tawhid tawhid nag da ngay taxaw nit ki ngeen wéet nga mën a xam tawhidam sunna nag ñëpp mën nañ ko xamaloo ci nit muy sunna sëñ Abdou Khadir léegi nag tawhid yi nga xam ne moom lañu waxoon muy ñaar fukki jikko yi nga xam ni yàlla jagleel na ko ko te nee naa gisuma fu bari fu mu am kon liñ ko tuddee ndax dafa am benn waay ba ne ma dee ko tuddee carte d'identité bi ndax carte d'identité mooy loo xam ne yow rek yaa ko am koo gis xam ni diwee sa waajur diwee sa kii sëñ Abdou Khadir na daa yor ñaari jikko yoo xam ne moom jërul mu koy bokk kenn koo xam ne am na ñaar fukki yi ma ne sa ci am yenn yu bare am ñaar fukki yu lu jafe moo tax ma ne yow laaj ma jiili ma wax la jiili kan moo di jiili nga xam ni jiili moo doon imaam ja doon doomi daam ja ka doon maam ja moom sayxu jiili al istiqaama jikkoom la ndaama bindam la daama dikkaat di jiili tawxiid ju ko jul sunna sume ak xol bu gàkkul kenn du ca jiili du tekki gàllaaj du jànni koy laaj doonul ku ñuy ñaaj moom sayxu jiili du takki téere du xoob du cawri du ñaan lu bayre cay sayxu jiili du takk ay xaaw du tiimi pettaaw du ñaan ci luy naaw sànni ko jiili du xëy wisum ndox jël béjéenam sox du lu ay wax moom sayxu jiili du takk ak fas du sarxe fas ngir jublu caa fas ak mucc jiili du leb du leble day may du able gàddoo ko tayle du jikko jiili du ñaan ci xomb du sangu xamb diine la xamb moom say ko jiili du taaji njaq ñu di ko séq du sarxi séq ngir fegu jiili du danki nakk ngir na fi nekk moo tax ku nekk warmaal na jiili du wut xarum yar def ko ci biir kër foog ni da koy aar ci lenn jiili buy musli it cat du ma cakay jat du salxe ngir jot bakkan ba jiili ginnaaw waxtu dafa gàtt na ñu gàttal ko foofu asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu sëñ Abdou Khadir sëñ Mouhamadou Lamine dafa mel ne sëriñ Lamine liñ doon wax lépp tënk na ko ci luxatu as-sihr bilaatu yaman al sihrul as-sihrul xalaal ni ko naar yi waxee jazakumullahu xayran jataay bi dafa mel ne kilifa yi loolu lañ jublu woon moo taxoon sëriñ bi santaane ñu woote ko fii waxtaan ci tomb yu am solo yi dafa mel ne liñ doon tënk rek mooy li sëriñ boo xoon ci ne diine diine ak ruuxam mooy tawxiid aw yaramam mooy lislaam waaye lixsaan mooy ay yéeréem ka annama tawxiidu fii dal xaali ruuxun li diini dil jalaali wa jismuhu lislaamu wal ixsaanu libaasuhu alladi bihi yasdaanu diine du am mukk te lislaam amul aw yaram mooy lislaam kon ku taxawul ponki lislaam yi fuñ ne diine nga fay nekku fa waaye aw yaram koy neexal lu xew rek jàpp nañu nit ñi te ci dëgg-dëgg li am mooy sunu borom mooy sottal moomam te moom lu fi ne mooma lu fi ne lu fi yàqu nag jàmm ñi rafet jikko doon waxtaane wan nit ñi it nag ne mën naa nekk Cheikh Abdou Khadir jëmmal na ko lu bari nit ñi boo koy waxtaan dañuy foog nii diine koy wax ci téere la nekk waaye loolu kenn mënu ko dund Cheikh Abdou Khadir nag wane na ne diine ca nam yàlla ga gën a mat saxaaba yi doon dund ak yonent bi ab jàmm na ko dund tey Cheikh Abdou Khadir jëmal na ko ci juróom-ñaar fukki at yu tegal yoo xam ne léppam dafa rafet mat loolu jàpp naa ne lu am solo luñ mat a bàyyi xel loolu la sëriñ bi bëggoon bu màggal gi jub ñu di ko waajal waaye bu agsee it nit ñi xam ne ci loolu lañ nekk moo taxoon it mu woote lu jotaay bii eh, bëgg mu yaatu it nag ñoo xam ne njabootu Sëriñ Abdou Khadir Sëriñ Cheikh moo ne ci bopp bi lu yàlla dogal waaye nag ñi mu bokkal Sëriñ Abdou Khadir ñëpp moom ñoom ñoo am ci bis bi. moo ren ji ñu ne mu sàkku ñu indi waxtaan yi fii ci kër Cheikh Mamadou Fadil al imam moom itam sëriñ bi mu ngi koy sant sant bu rafet ci yittewoo ak yëg ak bàyyi xel gi bàyyi xel jotaay bi ak ñor gum ko ñor mm-hmm. taxawaay yu rafet yi ñu ci taxaw ak eh, mat gi ci wane. loolu it kilifa yaa ngi koy rafet lu baax a baax ñëw teew ànd ak sëñ Sidi Muxtaar sëriñ Mouhamadou Bousso Alimaam ak kilifa yeeg taalibe mbokk yëpp ñëw ànd loolu wane na bis bi rëy na ci moom yëg na ko waaye kilifa yi santaane ñu def ko fi it seen xol sedd na ci kon yàlla na sunu borom dëggal yaakaar yëpp te mott li bi di kàddu yi fii ci bit yàlla nañ ci am ñu ñëpp am ci ngërëmul Sëriñ Tuubaa am ci ngërëmul Sëriñ Abdou Khadre waaye yàlla nañ ci doon ñoo xam ni dañu yéegee ci ci gaa ñu baax ñooñu ndax góor góor lu ak yittewoo nit ku baax dana tax sunu borom la ci ndax dana tax nga mën koo topp te borom bi noonu walladina amoon wa tabaatum durriyatum bi iman alxaqna bihim durriyatihim loolu nag lu am yaakaar lu ñu war dal dalal xel la kon loolu rek mooy solo jataay bi ñu xam ne lépp sëriñ bee ko santaane yaatal la ci jublu it sëriñ Fàllu miñ ko indi këram it dégg na lool bu baax wane na ko ci taxawaayam ci lépp lu aju jataay bi kon ci turu kilifa yi ñu ngi ko ñaanal moom it jox na ndigal ne kàddoom sëriñ Mawone maam maam bus ay maam imaam bu joxee imaam kàddoom waxal ko wàcc na kon moom lay jébbal kàddoom ci mu gi waaye daal ñu xam ne kilifa yi kilifa yi nañu bàyyi xel bu baax a baax ne jataay yi bëgg nit taalibe yi jariñu ci fàttaliku dund koo xam ne léppam njariñ la sunu borom bi mu fi indi jaam ñi bu ko neexoon mu bàyyi kenn ku ne mu doxee na muy doxee waaye daa wut njiit teg ko ci kanam nit ñi jox ko téere ne ko waxal nit ñi lii laa bëgg njiit loolu nag moo fi nekk ba tey mooy Cheikh Abdul Qadir ci jamonoom mooy yonent alayhi salaam ñoo ko dooroon yonent yi ba agsi ci Muhammad alayhi salaatu salaam bi mu fi jógee bàyyi fiis ñi mel ne Cheikh Abdul Qadir kon waxtaane leen mooy waxtaane diine waxtaane leen mooy defar jikko yi ndax niñ meloon noonu la yàlla bëgg noonu rek la yàlla bëgg ku bëgg mel ni yàlla bëgg boo mel ëllëgee nga am ngërëngam dem aljana mucc ci ay loroom ak i tëkkoom da ngay jéem mel jikko ko jikko yooyu loolu moo tax kilifa yi sawar ci di woote bis mel nii ngir jariñ ci nit ñi njariñ néewaloon ci lu dul loolu ren it ñu ñu ñu ñuy sant yàlla ci Cheikh Abdoul Khadir ba mu feeñee ak léegi ci ati tubaab yi téeméeri at la ci ren téeméeri at nag dund lu am ci ci àdduna moo tax sëriñ bi joxe ndégal ci ne téeméeri yooyu nañ ko bàyyi xel yitte juñ doon jox màggal ji danañ ko yokk bokk na ci bàyyi xel nag téeméeri at yooyu kon nee na jagleel nañ ko maam Thierno Ibrahim sànq ci ngoon sëriñ si yebale na. ci Darou Mouhty ngir yëgal ko kilifa ga waaye na mbokk yëpp bàyyi xel ne kon màggalu ren gi maam Thierno Ibrahim euh, duñu wax lu tax ku xam lu tax du ko wax maam Thierno Ibrahim moom la sëriñ yabaloon ba sëriñ Abdou Khadir feeñee yónni ko Daaru Alimul Xabiir wax la mu ko waxoon ci ay bégle yoo xam ne maam Thierno daan na ci nett loo xam ne duñ ko wax ci mbooloo waaye daal lu rëy la ci woon ci moom am na lu mu seddoon sëriñ Abdou te sëriñ bee ko ko waxoon kon nag am na cër bu rëy ci ni ko ñëpp amee waaye moom nag dafa mel ne am na cër boppam loolu moo tax sëriñ bi ne kon maam Thierno Ibrahima Faty la lañuy jagleel màggalu ren gi ci téeméeri at yi ngir fàttaliku wóllëre ak séq-séq yu bari yooyu loolu baax na taalibe yi xam ko fu ñu mën nag yóbbaale ko fa waaye dund ko di ci nafaraale diggante yu rafet yooyu amoon ku ne xam na Cheikh Abdou Khadir kër yi diggam mag kër yëpp rafetoon waaye diggam mag waa kër maam Thierno rafet na lool. ak ay ay ay joteem jikkoom ju rafet ji sëriñ Mor doon wax boo jikko bu rafetee day mat kuy dégg ñu koy jëñ jikko ju rafet te mu jëm wér rek des na Cheikh Abdou Khadir mooy koo xam ne jikkoom ju rafet amul fu manqué du ci jëflanteem diggam ak borom borom jëppiwu ko fenn musu koo soxla fu mu teewul borom musu koo soxla fu mu teewul te jaam yàlla loolu la yàlla soxla ci jaamam waaye jaam yàlla it kenn musu cee am soxla Cheikh Abdou Khadir doon ci dara ci teewul. rafetaloon lool mbokk yi rafetal diggam ak taaliba yi mbokk yi dund ak yi fi nekkut lu néew ci jamono koo xam ne ci at mi mbooleem fu sa maam ju baax nekk ci réew mi danga fa dem ba fi Cheikh Abdou Khadre jógee lañ ko gis daana dem Poroxaan at mu jot di dem Naawel at mu jot di dem Mbàkke Jolof at mu jot di dem deqle at mu jot Mbàkke Bawol nag ci ay këram la bokkoon nga xam ne kon fu ñu maax ñu ñu nekk ko ñëpp at mu jot kenn ku nekk dana dem fekk la fa nga nekk ñaanal la dolli la leer ki ki kii fàttaliku ñi fi jógee lu ma téeméer nangam jëlale nañu fi teew jikko yu rafet yu mag yooyu nga xam ne dafa matoon dafa dajale woon moo tax ñu sawar ci di woote bisam ndax ku ca jël dara téye dund ko boo liggéey da ko rawee say morom loolu nag moom la kilifa yéene ñëpp moo tax ñu sawar ci woote màggal gi di ko gàttandoo waxtaan yu mel nii ndax Cheikh Abdou Khadir nag ku ko ku ko wooteel bis moom da nga waxtaani diine da waxtaan waxtaani jikko yu rafet amutoon leneen yàlla yi defal na ko ci ndam nag ndam loo xam ne histoire mas man nay nett lu bari waaye néew na fu mu ñu fekk lu mel noonu nit koo xam ne dañ lay wax ne ñaar fukki at ak nangam jiitu na ko jumaa mësta wuute jenn ajuma histoire xamuñ ko fi te nit doomu aadama doomu aadama la am nay soxla day wéradi waaye Cheikh Abdou Khadir ñaar fukki at yu tegal mësa wuute ajuma sëriñ bi loolu lu yéeme la mooy ne yàlla ñor na la ci anam yëpp ba gënal la am amoon nay soxla di tukki waaye fu mu mas a dem bu alxames mu ñibbisi ngaawu la fii xëyee bu alxames mu ñibbisi ndax lan am na ndigal yàlla loo xam ne fa su ko yéenee wute xool leen ilimaan joo xam ne amutoon naayib si Abdou Khari jàkkaam amul naayib waxuma la jumaa ji de jàkkaam ji ci këram ki ngeen xamul ko naayib waxtu yëpp mu ko daan jiite kenn ku la wax ne la jàkkee sëñ bu xaar diwa doon naay bam bu fi nekkut wala bu amee ngant wala bu tab jàmm mooy waxtu yëpp moo fi doon jiite nit ñi loolu ci ay karaama yoo xam ne histoire dana commencé bind ci la bokk nit ñi dañ koy dund nag teewe gi doo ko bàyyi xel waaye ci karaama yi ñu yëm ci la bokk jër bu tol noonu nga nga li yàlla li yàlla soxla ci yow lépp nga di ko matal ci nam gën a rafete loolu mbokk yi ku yéem yéemal loolu ku yéem yéemal loolu loolu Euh, tawféex la joo xam ne ku ci yàlla booyee nga doon ci dara war ngaa sant yàlla waaye nag am nga sas war ngaa góorgóorlu ndax képp koo xam ne sa waay moo man ci roywaay waay yow it yaa war man ci ci roykat yi saa bu la gisee ci lul noona wala ci ci lu baax ñu ci ñu ci rawante te rëwoo ca wàcce nga sa waar kooku mooy Cheikh Abdou Khadir Mbacké yàlla na ko yàlla fayal waaye yàlla na yàlla taxawu njabootam ndax it nag ñoom itamit nag li ñëpp xam. mooy xam nañ ne wa waar wa sëriñ Abdou Khadir nekkoon ñi ngi cee nekk di bay rek te rafetal mbay ngi fonk diine fonk jaamu yàlla fonk jàkk yi nga xam ne Cheikh Abdou Khadir ci la doon xaritook nit ñi di ci di ci di ci di ci di ci séq ñoom loo xam ne te loolu lu mu royee ci sunna la jàkk mooy li yàlla wax ne innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama salata xam ata zaka ku ku ku gëmul yàlla gëm gu dëggu mun fonk jàkk gëm yàlla bu dëgguwut mun a fonk jàkk léeg-léeg mën ngay gindi ñaari fan ñett waaye sax ci dëkk ca saa bu jàkka wootee nga wuy si loolu gëm yàlla gu dëggu la te gëm yàlla gu dëggu mooy garaat bi gën a màgg bi gën a kawe bu ab jàmm di jéem a ràngoo Cheikh Abdou na ko ci anam gën a rafet kon yàlla na ko yàlla fayal ñu ngi jéggul mbokk yi di leen baalu xaq di leen fàttali màggal gi ñu bàyyi xel ni jataay yu njër fas yëpp jataay yi waajal waaye bisu màggal gi mooy altine incha allahu taala sëriñ banque yi woo ñëpp di leen ci soññi fu waay mën a nekk it nga ànd ci ñu koy dundal ci jàng alquranul karim ak daf yu baax te yéene sëriñ Abdou Khadir Mbacke yool ba sëriñ Sidi Muxtaar mi nga xam ne moom la sëriñ bi teg màggal gi ci loxoom it mi ngi rafetlu jataay yi ñii ko sëriñ Fallu defee ba ci dem dégg rek sëriñ Cerno Bousso lañ ko defee woon këram muy mag ci kër gi moom itam mu rafetal jataay ba lool naka noonu it lañ koy defee ci kër yi ñëw ci bi si di ñëw ngir rek ni sëriñ bi waxee ne yaatal. lu yaatu dañ ko yaatal te Cheikh Abdou Khadre dafa yaatu ginnaaw dafa yaatu nag njaboot gi yaatu faaw na ci ñëpp feeñ kenn ku ne xam ne nga ci cër loolu moo tax tey ñëw ko Cheikh Modou Fadal boo liggéey ñu dem feneen waaye loolu na ko mbokk yi déggee te xam ne loolu la ndokk nag bi ñu ko xamee ñoom itam tarafetal xamen yi kon li ci des mooy kàddu Cheikh Mouhamadou Fadal mi nga xam ne tey lañ teew ci këram muy imaam jox na sëriñ maam bu sa imaam ngir mu jottali ko kàddoom imaam mooy jottali kàddu imaam loolu nag jàpp naa ne kon waaw du du jaaxal nit ñi kon ñu déglu suñu maam